Assalamualaikum, mbokk internet yeen yi nga xamne yeen yi sifu ci Touba sawga TV ñoo ngi am top ak contente bu baax baax ci top gi top ci programme bi di am contente bu baax baax tay ji nak ñuy def euh, émission bi nga xamne ni mo émission jangat di émission jangat nak day jëm ci xew-xew yi nga xamne moy am ci semaine bi du jëm ci lepp lo xamne ni day aj ci dekk bi sel bi ci Touba tay ji nañ ci dal sëñ Mbaye Ndiaye ak sëñ Modou Diop nga xamne ñoo xam ne dañuy liggéey fii ci Touba Sekhawgui TV kon dañuy jox sëñ Mbaye Ndiaye mu nuyoo bu ko defee jox sëñ Modou ñu commencé waxtaan bi sëñ Mbaye Ndiaye ngi lay nuyu. waa Diagne maa ngi lay ziyaara bu baax di la fay nuyoo di jaajëfal tamit mboole mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci Sekhawgui TV. comme ni nga ko waxee rek émission bi xëy na raaroon na ñu bëree bari tamit doon nañ ko doon ko xaar euh, kon nag dellusiwaat gi moom dana am solo lool ak itam bari na xew-xew yoo xam ne xew na fi ci ci ci diggante bi yu bëree bëri yoo xam ni mën nañ cee jàng may jaajëfal bu baax a baax tamit jaas sama naataango bi nga xam ne saa su nekk ñoo bokk euh, liggéey bi di la jaajëfal yow tamit di jaajëfal mborom groupe bi yëpp. jërëjëf ci nuyoo boobu xam naa ko nu jox si Modou Diop moom itam nuyoo bu ko defee ñu moom tàmbali waxtaan bi. jërëjëf euh, Mamadou Diagne ñu ngi lay fay sa nuyoo di nuyu aussi tamit sama naataango Serigne Mbaye Ndiaye euh, di nuyu bokk yi nga xamante ne aussi ñu ngi ñuy seetaan ci Xeweul TV di wax ni seen émission Euh, jàngat dellu siwaat na bien vrai que ni tamit bokk yi ñuy topp ci euh, Sa Xew gi TV ñu ngi ko doon réclamer waaye yaakaar naa ni euh, seen njàqare commencé na di faju ginnaaw bi nga xam te ne jàkkaarloowaat nañ ak ki nga xam te ne moom moo doon diriger débat yi muy Mamadou Diagne raar gi nag dara waralu ko woon waa nekkutoon lenn lu dut nag li olof di wax naan yokk cere dolli ñeex yaakaar naa ni kon li ci kanam mooy dàq li nga xam te moom moo passé bisimilah. jërëjëf sëñ Modou ci nuyoo boobu xam naa dañuy jëkkee waxtaan bi ci lu jëm ci wàllum kaaraange dëkk bi mu ñuy wax wàllum sécurité dafa mel ni euh, fan yi passé bari woon na ay coow yu bëri yu ci am ci diggante ñi nga xam ne ñoo ko seq balaa boobu nag dañuy wax dañuy njëkk ci maanaam wallum sécurité dëkk bi ban gis-gis ngeen ci am sëñ Mbaye ndax fan yi ca ginnaaw yaakaar naa ay rey amoon na fekk ay agression yu bëri commencé am ci dëkk bi rawatina nag wàllum ñi nga xam ne nii xëy na diñ ci yëngu amu ci ay ay ay coow yu ndaw yu ci amoon ñu bëggoon def jàngat boobu di ci wax di leen ci laaj wàllu sécurité dëkk bi la ban xalaat nga ci am sécurité dëkk bi ban xalaat nga ci am. waaw euh, jërëjëf Modou Diagne ma jaajëfal laan la bu baax jaajëfal tamit mbokki taalibe yi comme ñu ko baaxoo defee euh, tuubaa nag dafa dafa spécial ci réew mi ndax te di dëkk boo xam ni ku nekk fi nekk euh, façon nit bu nekk a ngi fi nit bu nekk moo ngi dund ci biir dëkk bi kon day laaj foofu. Euh, sécurité bu mat ci ci fànn yëpp ndax euh, dafa ni mën ni dañ deuxième capitale du Sénégal parce que Touba léegi dafa màgg benn façon màgg euh, dafa dafa ñu bari kon bu dafa jëm ci gendarmerie. ak euh, yeneen anam yu bëree bari dafa baax mu bari lool ci biir dëkk bi nga xam ne moo di Touba ndax dana tax ñu mën a saytu lu bëree bari ci dëkk bi en même temps tamit euh, amoon nañ ci ay yenn groupe wala ay ay association yoo xam ni dañ ci doon amal liggéey bu am solo muy euh, fu mel ni Safinatul Amaan même waa xidma tamit ñu doon ci amal liggéey bu am solo kon dangay gis que ni boo xoolee kon day mel ni ñetti koor moo ngi noonu yoo xam ni. bu ci nekk moo ngi doon dox liggéeyam te du tee dañ doon gis ni insécurité bi day am ci réew mi ci day am ci dëkk bi bi di Touba kon da ngay gis ni am na ay gox yoo xam ne il faut ñu ñu ñu occuper ko bu baax a baax ngir mën a saytu saytu sécurité bu bu baax a baax. beneen bi topp boo seetloo da ngay gis que ni ci biir dëkk bi di Touba day am yenn gox wala yenn secteur yoo xam ne dañ lay wax ne la bii lii moo fay am lii moo fay am lii moo fay am te Touba doonul secteur boo xam ne da nga naan mën na mën na të ñi fi nekk mën na të état bañ mën a xam exactement. ñi fa nekk di dund loolu ñu ñu mën leen a lijjanti c'est très simple que ñu lijjanti leen mais da di ne gouvernement bi nag boo xoolee day mel ni biir Touba daal da cee bari yoo xam ne euh, daf daf ko xaw a daf ko xaw a xaw xaw a woyofal loolu daal. te Touba instant bi ñu fiy dund dund gi daal waroon na am ay sanctions yu mettee metti ci yenn gox yi nga xam ne mu ngi ci biir dëkk bi surtout ñu dooleel ñi nga xam ne ñoo di safinatul amaan ak waa xidma parce que ñoom it ay taalibe lañ ci biir dëkk bi lañ màggee fi lañ yaroo xam nañ li fi nekk bu baax a baax waaw waaw waaw waaw xam nga xam nga bu fekkoon ki nga xam ne mooy mun taxa moo samp yooyu yëpp bu boobaa booloo gi day am mais bu ci nekk boo xoolee daanaka da ci am koo xam ne moom mooy walanteeru ut ay gaayam ñu ànd dugg ci liggéey boobu léegi kon sëriñ bi ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi moo leen di woo ñoom ñaar ñëpp ku ne mu wax ci ban anam ngay liggéeyee ci ban anam ngay doxee mu laaj kii ñu xool seen ñaari doxalin bu fekkee mën na ànd ñu boole ko parce que ñoom ñëpp sécurité dëkk bi ci la ñuy dox mais nag boo xoolee ci ginnaaw bi itam ñoom ñaar ku nekk yaa ngi dox sa liggéey en même temps da boo boo xoolee fu mel ni police wala gendarmerie am na foo xam ne safinatul amaan wala xidma bu mu ci mën a doon bu fa tollee day informer police da leen di jox ay information yu leer te ñoom ci sax ci seen biir wax léeg-léeg dañuy dégg gën a dañuy jàpp ne ci wàllum tronc wala sàcc wala dara buñ ko bokkul tam quelques minutes ñu génne waat ko léegi kon da ngay xam ne ko ñoom am nañu problème ñoom ci seen biir. te problème bi dañoo jàpp ay civil lañu am na loo xam ne ñoom ci seen biir mënuñu ko mais ki nga xam ne mooy takk der muy police wala muy gendarmerie dëkk ñu jëndee loolu ñoom dañ koy yóbbu waaye ñoom it dañuy gis ñoom ñu def seen seen mboolu bu waay moo tax léeg-léeg itam léeg-léeg ay xëccoo xëccoo ci mën a jàng daal. waaw waaw jërëjëf si loolu la si ci laaj bi ñu laaj si mbéy day day mel ni wàllu sécurité bi maanaam li nga xam ne ñoo ngi ci Moukhaddamatoul Khidma ak Moukhaddamatoul Moukhaddamaat yi nga xam moom lañ ak wàllum Safin Amaan ak police ak sàllam yi nga xam ne ñoo ñoo dafa mel ni dëkk bi teewul maam maa ngi am ci ko léegi yow ba jàng nga jàng dafa mel ni itam maanaam bu ñëwee Touba xam nga bu fekkee police spéciale dañ ne euh, police spéciale la ndax Touba dafa spéciale moo tax ndax ban na lu ñuy bañ ci dëkk ñoo xam ne nangu nañ seen dëkk te nangu nañ ci wax nga yaakaar nga xam ne maanaam ànd bi yéen dëgg nga yaakaar ne ñu euh, maa ngi lay jël baax a baax ci question bi di sawar aussi tamit ci tontu ci ci li nga xam la sama xel toll. Mhm. waaye di ci remercier aussi tamit membre yi def nañ ci euh, révélation bu am important. Mhm. parce que tamit boo xoolee comme li ma waxoon euh, Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni jamono ji ñu toll mhm. maanaam mën naa ni euh, bokk nañ ci gën a mag ci Sénégal. même bu fekkente ni sax nekkul capital. mën ngeen mooy deuxième capital mais tey bu fekkoon ne teg nañ lépp ci wàllu lotissement. amaana moom mooy dëkk bi moom capital bu Sénégal. donc Touba nekk nekk nekk ndaw. beneen bi ci dëkk mooy mu nekk tamit dëkk boo xamante ni dëkk yu ndaw Touba nekk ci lu demee Touba dafay manqué luy manqué nag te xamoo ko fan la yëg aussi tamit pour nga gis yéen matuwaay yi dafa dana xaw a compliqué euh, damay faral di ñaaw tamit des fois su ma déggee leen crime yi ci biir dëkk bi ndax am ci yoo xamante ni xotti na mu dëkk sincèrement rafet na ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ko def dañ xool seen seen borom nga xam ne Serigne Touba jiw leen ndax koo xamante ni tey duggal ci démb ak démb sama lépp mm. nekkutoon lépp maanaam euh, njëriñu jaam yi texee jaam yi ëllëg boobu yaakaar naa a fay leneen di jël yi fi ñaaw di ko def te kenn ko ne Serigne Touba yàlla gërëm yaakaar na fi liggéey fi Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba am fi ngërëmal yàlla la ngërëm yàlla la dana euh, mm. mm. maanaam euh, zone yoo xamante boo fa gisee auto police bu traversé bi dafa traversé wàll am na ci quartier yoo xamante ne mën nañu dund naa duñu gis auto police fa traversé. kon daal da jàpp ni maanaam maanaam wàllu wàllu poste yi nga xam ne wala wàllu brigade yi ne Touba moo néew ba tax man gisee ci. bien sûr euh, mën naa ni néew na mais da ciy am poste yoo xam ne zone ba ñu ni féetale la ca la war a nekk seen liggéey dëgg-dëgg maanaam dañu ko def. parce que man dama remarqué maanaam quartier bu amul tali rek oto police du fa sawar a jaar te pourtant oto police bu doon bu doon tourné ci biir quartier yi maanaam loolu dina alerté population ba fa dëkk képp ku fa bëggoon def li fi ñaaw te di nga xalaat ni yaa ngi koy def mais à tout moment oto police mën na traversé fekk na ci. waaye tam nga yaakaar ne maanaam tam police li koy jàppale ci maanaam wàllum sécurité bokk ci itam maanaam population bi ñu gisee loo xam ne waruñu ñu ci jaaduwul ci dëkk bi wala jaaduwul ñu dénoncé ko bu ko defee ñooña di def ñaawte boobu plus mën leen jàpp daanaka population yi tam maam nekk nekk na ñoo xam ne itam dañoo dañoo boobu waaw bu ma nee nag dañoo toog seetaan xam nga lu tax comme yéen fois nga fi dégg sàcc bi ñu jàpp yóbbu ko police boo ko yóbbu bii di treize koy tawat bu fekkee jël ko a fajal sa bopp dañ nekk mujj nekk dee ko fàtte nga sa bopp ay prof nit du fayal boppam bu gaar wat que zone yooyu noonu dañoo am ay télé dañoo fay dem ak a dikk donc kon tamit ñoom pour man seen montée yi xam nga maanaam maanaam dafa am leneen lu nekk ci biir lu ñu waxul comprendre nga li ma la ci sama gis-gis bu gàtt maanaam yor sécurité dëkk bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg même bu dee moo leen taxajug sax mais nañ ko war a defee dëgg des na quoi waaw sama gis-gis bu gàtt. jërëjëf si ci jàngat boobu nga amal ci Mbaye Ndiaye day dellusiwaat ci comme ni ko si Modou waxee waaye day jëm nag maanaam euh, tey day jëm ci li nga xam ne nii ñun ñu nga xam ñooy population Touba ban taxawaay la war a am ci ci wàllu woowu ndax dafa mel ni itam sécurité nekku ne police mën na mën na nekk saa su ne di taxaw ci koñ bu ne di mën a xam ñaaw def ko ci ñaawte fi ñu nekk. dafa mel ni itam population bi xaw na leen seetaan ci côté boobu ndax fekkoon dañuy dénoncé bu ñu gisee ni ñu war da wax ko damaa jàpp ne war nañoo mën a àgg foofa ba am ay numéro vert yoo xam ne suñ gisee loo xam ne waruñ ko jekkut jaadul ñu leen pour mën a liggéey bi gën a mën a yomb ci ñoom. loolu <coughs> c'est normal que noonu noonu noonu la waroon a demee waaye nag dafa wóorut ndax man bu fekkee dama jàpp sàcc ma yóbbu ko euh, moo xam fu mu ci mën a doon ci ci gox yi nga xam si ni police ñoo ngi foofu la gendarmerie. après ma toog ay quelque minutes ma gis sàcc bi ma jàppoon mu génnaat léegi kon li sama xel di jàpp mooy police dañoo am complicité ak kooku noonu te ñoom ñaar bu ñu àndee dañ ma yëpp doole man léegi kon damay neutre mais bu fekkoon dama gis ni police dafa féete sama côté mooy dama ko yóbbul sàcc mu teg ci li ci war boo léegi même bu dul man lañ sàcc keneen kum sàcc damay am fierté dem yoole ko parce que damay xam ne bu police ñëwee dina def liggéeyam mais comme que deful liggéeyam ci kee dama naa ñoom ñaar ñoo ànd te ñoom ñaar bu ñu àndee dañ may ëpp doole man kon bu boobaa man damay néew doole damay neutre même bu doon sama kër lañ koy def du ci mën dara du may am ci neutre mais damay dem ba dootuma ñeme sax dootuma ñeme bu ma gisoon sàcc du ma ñeme sax génn wala may wax dara que bu boobaa dara wuuru ci parce que lu nekk mën na ci xew lu nekk tamit mën na la ci fekk mais ak lu ak lu mën a xew daal ci dëkk bi war nañoo fexe ba sécurité bi ñu gën ko yokk ci anam yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci anam yëpp parce que tey Touba ak ni mu toll waroon nañ koo jël ci côté yëpp côté euh, bi féete côté Daaru Sow ñu def fa escadron bu mag am na bu fa nekk ñu jël bu dee côté Ndindi ñu def fa bu mag côté Daaru Moxti ñu def fa bu mag côté bi tamit ñu def fa bu mag nga xam ne ñeenti xibla yëpp bu nekk dina am escadron bu mag boo xam ne dinañ mën a bokk di contrôler ndoo li ci biir dëkk bi buñ àndee ak xidma ak safinatul amaan bu boobaa day gën a yomb parce que safinatul amaan duñ jàpp kenn di ko tëj duñ jàpp kenn naa dañ koy atte mais nag am nañ droit buñ toppee ba gis lu jaaduwul